asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mercredi 31 juillet 2019 ñu ñëwee ci yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey mu mel ne sunu làmb la tribune les échos ba ci record ku ci nekk daal tey bi nga xëyee moom làmb ji fi amoon dimanche moom yaa ngi ci xëy ñëwaat bu dee yëglikaay bi du sunu làmb la moom mu ngi xëy woon ñu ñaari mbër yoo xam ne ku ci ne yaa nga yenu sa ndaa ndaa la nga yenu nag lu xonq la ko muure wala boog njaq di naalu ndaw moom nga yenu muy Balla Gaye numéro 2 ak kii nga xam ne moo di Modou Lo mi nga xam ne léegi nag mooy roi des arènes lamb ji mu mel ni ki nag kay wax père Mbaye la premier tigre de nag moom la mu xam le day Balla Gaye 2 daal la xëy tey di ko tagg di ko waxal yu baaxam Mbaye Gueye nee na de li leer ba leer lamb jiru ne moom Balla Gaye numéro 2 moo ci dàq bëre te itam nag moo ci gën a sëri de moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu nee na nag ku daan roi moom roi nga nee moo tax Modou Lo nekk roi waaye Lo itam de ko amee moom jàppal ne dina daan loolu mooy waxi kii nga xam ne nii moo di Mbaye Guèye tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mu mel ni ki nag yëglikaay tey xëy nañ ñëw am na koo xam ne moom ak kilifa ak diine la ñu koy wax Serigne Cheikh Ibrahima soxna dëkk ca Fatick moom day daa mel ni ci 2016 daal ah la waxoon Modou Lo ne ko day di nga yor kurunu làmb ji mu mel ni ki wax joojo moom tey am na yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw ci leneen loo xam ne yëglikaay bi da caa ñëw muy ka nga xam ne nii day moo doon bëre ak ki nga xam ne moo di Modou Lo di Eumeu seen mag ja Pape Ngom moo xëy tey di wax Pape Ngom day nee na li leer ba leer daal fi mu nekk nii daal rakkam di Eumeu seen mu ngi ci course bi ba tey de génnagul de mu nga ca mbir ya jongante ba tey daal mu ngi ci biir nañ koy sóoraale waaye njuga ji day di entraîné nekk ci Rock Énergie nee na ko bu fi dese itam de boppam lay lay indil problème donc ndax nag moom nee na bu demut itam bàyyi làmb ji li koy dali ëllëg mooy gën a metti li nga xam ne ni moo ko dal bërki déem mu mel ni ki nag daal fi mu nekk nii moom coow laa ngi mel ni tuleeg màlle ci combat boobu donte jeex na ca fii nga xam ne nii mooy ca stade ba waaye jeexagul nag fii nga xam ne nii day mooy ci biir dëkk bi mu mel ni ki nag yëglikaay bi nga xam ne nii day moom moo di record record tamit xëy na ñëw de kii nga xam ne nii daal moom moo di biram ñing moom la xëy seqal waxtaan biram ñing nag la mu xam ne day nee na leer ba leer daal moo di moom bàyyiwu fi benn mbër ku ñëw daal dana bëre ak moom yëglikaay bi moo xëy tey wan ñu ko waaye leneen loo xam ne tamit nañ ko fii nga xam ne moo di leese ko yëglikaay bi daa ñëw ci dagg ba nga xam ne dagg nañ ko mbër yi bu dee ama seen la moom dagg nañ ko huit cent dix mille francs Modou Lo ñu dagg ko sept cent soixante dix mille francs yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu ko wax léese ko la tribune moom adversaire ba la ñëw nee na diggante Modou ak Balla ndax loolu mën naa ñàkk yëglikaay bi xëy tey ñëw di ñu ko wax waaye li leer ba leer daal jàppal ña nga xam ne ñoom jox nañ leen xalaat ñu xëy wax di ay nitu làmb wala ñu di supporter wala ñu di amateur moom nañ Modou daal que ñu gën a gis ci adversaire am ne nañ Ama Baldé la wala Tapha Tine ñoom daal bañ leen joxee micro moom loolu la ñu xëy tey joxe ko Ama daal la ñu gis wala kii nga xam ne nii day moom moo di Tapha Tine yëglikaay bii di sunu làmb moo xëy waxaat ñu lu mel ni ki noonu waaye li leer ba leer day kii nga xam ne nii moo di la tribune ñëw na ci làmb ji fi amoon tamit samedi mu mel ni ki tey seen demoon diggante ma góor a soog bàyyeegul mu sedd de recours daal dugal na ko fa nga ne moo di ca CNG ba nag di xaar ñu jox ko ndamam ndax daa jàpp ne moom moo daan góor soog waaye ñeneen ñoo xam ne moom daanante tey dinañ ko def muy diggante kii nga xam ne nii de moo di kalmu ndur di garam mbañik ak ki nga xam ne moo di Pape Yékini yëglikaay bi di sunu làmb nee na tey nag jiw seen moo tëj jooju làmb ca stade Iba Mar Diop di 31 juillet mu fas yéene nag tey tëj saison bi fa nga xam ne nag mooy ca Iba Mar Diop waaye yëglikaay bi tam ñëw na tey jii day Adrien Senghor ab miis naroon nañ ko faa teg Jax moo ko fa naroon teg waaye Jax nag mujj na annulé loola loola daal kon jàpp leen ne amatul waaye miis ba mu tegoon kere nag ku ko nga xam ne moo doon ca Iba Mar moom Cheikh Tidiane Niang moo ca teg loxo waaye li leer ba leer day taala jàppal tey la mercredi taala tey la 31 juillet taala tey la làmb ji tëj ci kàttanu suñu borom kon daal li leer ba leer day xam naa dinañ nam làmb bi liwaatoo caxabal galgal sukkër bi xattar beeg nooju wala dóor nga daanu lépp gaa yi danañu ko nam ak tuusi yu mel ni ki noonu waaye nag lu olof wax rek lu tëgg tamit day tas xanaa kay ñu muñ rek fii ak ay weer si kàttanu yàlla ñu bër te ñaan yàlla mu waat ci jàmm waaye loo ci mën déggi dégg moom saison bi daa mel ni xawoon naa ala dawme salaamaaleykum mbokki sur Leewtoo TV ñu leen ñu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ñëw ak yéen seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour si ànd ak uh, sama mag sama xarit Babacar Babacar nuyu naa la Aïssa Faye maa ngi lay fay ah, sama rak sama xarit madame Niang maa ngi lay bëggee di leen nuyu di nuyu internet yëpp di leen jégalu nag ci démb ndax démb gisuñu revue bi te ñu ko doon laaj dañu amal ay quelques jafe-jafe rek waaw mais gënaluñu woon bu ñu sañoon moom chaque jour rek dinañ leen di revue bi jox leen ko ndax seen yëf la ñu dugg direct ci li nga xam ne ni mooy euh, jàngat bi parce que boo gisee tamit euh, bi combat bi jeexee ba léegi am sax ñu naan euh, Eumeu Sène Modou ak Balla Gaye ñooy génération deux point deux point zéro ku nekk daan nga sa morom deux fois mu nekk nag daanante yoo xam ne Père tamit tey ñëwaat na ci daal di joxe li nga xam ne ni mooy avem ci ñetti mbër yi moom nag jàpp na ni ñetti mbër yi ak lu si munti xew Balla Gaye daal mooy le meilleur si ñoom ñett waaw Père Mbaye Gueye loolu la xëy tey wax jàpp na ne Balla gay 2 mooy le maire ci ñoom ñett wala mooy maire ci làmb ji waaw loolu nag ñoom ñett moom ku ne daan nga sa moroom ñaar yoon Eumeu seen daan na Balla ñaar Balla daan Modou Lo ñaar Modou Lo daan ama ñaar loolu moo lay wan ne euh, làmb ay satu lenn ci am rek ku ci ne dafa am lu sa moroom di bëre te arrangé wu la loolu moo tax su ñuy bëre nga ciy gis lu mel ni ki noonu bu dee Balla gay la moog Eumeu seen dafa am nu bàllay bëree noo xam ne ni day neex ci Eumeu Sène moo tax à ñu seqee làmb boo xoolee bu ko ëmma dóoree ay in bu ko dóoree ay rafal da koy dóor pare arrière léegi su arrière nag distance bu yaatu leen seen diggante Balla Gaye nag day wàcc mu bëgg fayu ji léegi nag su jógee pour fayu ji ëmma day daw daje ak moom sol ko bu ko solee nag da koy xañ jàpp yaa ngi dégg bu ko xañee jàpp nag foofu nag ëmma day avantage ci Balla boo xoolee combat bu njëkk ba loola moo ca am jàpp la ko xañ bi mu dawee sol ko da ko xañ jàpp comme ëmma mbotkat la bi mu ko solee dëbb ko sol rek aj Balla yaakaar ne ëmm da koy mboot yaa ngi dégg mu dëgëral ay tànkam ci suuf ëmm dóor ko ca xabal bi loolu moo loolu leeral jël ba seen deuxième combat itam boo xoolee façon bëree boobu lañ bëree rek parce que def nañ action bu njëkk ñu leen ñu dellusiwaat mais boo xoolee bi mu koy wër ndomb lu mel noonu la ko xaw a def Balla bot ko ëmm ko moo indi wër ndomb ba bala ca am am ca ëmma gañe ko ñu jógee ca bu dee Balla la ak ki nga xam ne moo di Modou Lo tamit Modou pied gauche bi muy teg dafa neex ci Balla Gaye de ba pare mu sut ko boole ci te osé Balla mbër bu osé la bu mu bu bu. PNN dafa audacieux. non dafa da Balla moom lu la waaye mënti wax moom dafa osé du ma ne mooy mbër mi gën a osé mais bokk na ci mbër yi gën a osé ci làmb parce que gis nga moo Modou Lo seen premier combat ba at bi génnee seen diggante la mii dox dem ci kawam xeex Modou dóor ko uppercut mu effacé ko jaar ca flanc dem parce que Modou pied gauche la Balla da ko fay bàyyi wëri ko. def ko la mu koy def muuru di ko di ko lonk tànk bala dindi tànk ba éliminer troisième appui ba bés ko mu tëdd ñu dikkaat seen deuxième combat gis nga dafa xeex ak moom xeex bu tar Modou dóor mu dóor ñu daw jàppante mais laalul ay tànkam ba tey parce que Modou pied gauche bi doo ci jaar Balla bàyyi ko fa bëreeg moom ci kaw bëreeg moom ci kaw ba dugal ko fi mu ko bëgg dugal moo Modou bëgg def rotation génn Balla kal tànk bu pare def moom rotation yokk pour Modou du am dara bés ko mu dugg ci biir mu dem ba Modou amatul fu mu jàpp moo tax mu jàpp ko noonu am ñaari ngem bi daan ko jël boobu mu ko daan muy lu leer nañ bu dee tamit diggante mag Modou Lo bi muy teg dafay arrangé boo xoolee seen premier combat uppercut bi am ci bër euh, bërki démb mënoon na caa am ndax am na ca sax mais xëy na dafa porté wu kon mais xëy na nag ci ba loolu amee nag gis nga kere ëmm day daw jël tànku muudu bañ na daan na ko te du ko mën daan parce que muudu góose la encore fois pour nga daan ci góos lu jafe la bu dawee jël muudu nooju ko ñu raam daw jógaat muudu xeex ak moom ay rafal ñu daw ëmm ñëw songu si muudu dóor uppercut ñu génn bala ca am am ca gis nga fa ñu mujj muudu daan ko jël la bu leer moo tax nag bi ñuy bëriwaat dimanche passé muudu dafa amélioré loxoom boobu da ko defar parce que xam na ne comme doon na ko dóor uppercut te jàpp na ne bi yoon bu ko defaree mën na ci am ndam ci lu gaaw moo tax mu liggéey ko bi mu ko liggéey nag ñëw taxawaay bi jaaxal na ëmma mu tëj ko tëj bëre bi léegi ëmma li muy bëgg mooy kut ko kut serse na pour nu muy bëreek moom mënu ko am léegi li ko li li mu mën a def mooy jéem koo laaw goos pour dem jàppi laaw gos boobu nag mu liggéey li ci bi mu laawee mu def rotation génn rek am ko léegi nag am na loo xam ne bu la dalee dootoo mën a bëree loolu moo indi jëll bi moo lay wan ne kon ñoom ku ci ne am na nooy daane sa morom parce que dafa am lu ne ci yow loo xam ne ni dafa sa morom da ko foorewul bu ngeen ci yeggee nga daan ko ci ne loolu moo indi seen diggante mu deme noonu mais nag vraiment ñoom ñëpp ku ci ne champion nga ku ci ne am nga mérite ci li ngay def ndax Eumeu seen vraiment atam tey boo ko xoolee ñoom Balla Gaye ak ñoom Modou Lo moo leen mag lu bëri te pourtant wane na boppam ba nekk roi des arènes Modou Lo itam boo xoolee bindam ak ni mu mel ñàkkante na tey ba nekk roi des arènes moom mbër la bi nga xam ne tamit ku am jom la Balla Gaye numéro 2 moom li muy def da man macha allah talent talent la am ci bëre bu jàppee nga xam ne bëre kat pire moo nekk nii yaa ngi dégg kon loolu moo lay wan ne ñoom ñetti ñooñu daal am nañ méritu làmb wala sax mu ne mbër am nañ méritu làmb quoi parce que nag des fois ëppante sens dina fi nekk mais mbër muy takk ngemb rek boo sañoon mel ni Eumeu Sène wala Modou Lo wala Balla Gaye numéro 2 waaw dañuy jógee foofu dem seeti ki nga xam ne ni mooy Birame ñi nga di manager ci Modou Lo boobu ba léegi nag euh, Modou Lo comme waxul manageram tamit génn na daal di xam le nii que mbërëm bàyyiwu fi kenn mais guddi yu ñu toll nii tamit euh, ñoom tollaguñu fu ñuy waxee mm, pare nañ pour diw wala pare nañ pour kee dañuy toog waxtaan ak mbër bi toog ak staff bi ñoom ñëpp ñu waxtaan xool ban plan de carrière dañuy wutalaat ki nga xam ne ni mooy Modou waaw loolu moom mooy waxi biram ñu ngi biram ñu ngi nag moo newoon agent bi tey mu boole ci nekk manager bi yor licence su mbër mi waaw kon nee na actuellement tollu fi ñuy waxee adversaire mais nag même bu ñu fa tollul tamit xam nañ dañu am adversaire te nit ñi dinañ leen wax adversaire parce que loolu moo fi ne moom Modou Lo mbër la day bëri defe naa ku li ko dal ci Balla Gaye ku mu dal ci biir combat bi nga jël fa avance waxantuma laa boo daanee nekk roi des arènes kon yaakaar làmb nag comme li père Max Mbargane di wax suñu père ñu koy di ko ziar buñ la séentoo fit da ngay fital buñ la séentoo fital nga fit xëy na loolu moo ci ne moo tax mu déggoo comme wax boobu ba tey mu ngi toog jàpp njàmburam mais ku ne xam ne moom adversaire duñ ko mën a am faw ñu bëri xaw ma nag ku muy doon waaye dinañ bëri tur yi nag bëri na ñii ngi daan tafaatin ñi ne Ama Baldé ñi ne Balla ñi ne Bombardier ñi ne Gris Bordeaux ñi ne Lac de Guiers numéro 2 ñun ñëpp ay adversaire potentiel lañ pour Modou Lo moom nag actuellement c'est le roi des arènes mooy choisir waaw waaw euh, ma choisir ba tey mais ki nga xam ne démb mooy Eumeu Sène wax na ginnaaw bi nga xam ne combat bi jàll na mais tey tam ki nga xam ne mooy magam di Pape Ngom génn wax na ni mag malgré li am yëpp Eumeu day resté ba tey ci course bi. waaw loolu la wax ah Pape Ngom nee na rakkam day resté ci course bi effectivement parce que licence am jeexagul pour mu war a dem retraite da koy neex rek mu continuer mu neex ko mu arrêté magam nag mooy magam ji ko jege bokk moom day ak bàyyi bu waxee loolu ne rakkam day continuer des ci course bi tamit dañ koy mën a nangu et puis tamit man loolu dama koy dama si ànda parce que tax ma si ànd mooy sport la mënuloo ci nekk ne duñ ma gagné wala suñ la gagné da ngay bàyyi kon bul def si sport li li lay tax a bàyyi daal mooy yow nga demal sa bopp parce que ku ne yaa gën a xam sa bopp maanaam ku ne xam nga sa màttilal ay sa bu ma yégee ni man mii amatuma entraînement bu doy mënatuma koo am mënatuma am doole li ma daan def mënatuma ko si làmb su keroogee moom du toog ñu naan ma bàyyil man maay xam suma bopp bàyyi parce que xam sa bopp si jaamu yàlla la bokk bu fekkee nag ëmm moom mii athlète bi mu ngi yëg boppam kani moom ba tey mën na continuer dafa war a continuer carrière mais bu xoolee ne waratul continuer bu ko neexee arrêté ndax carrière len na ci nekk dina la maanaam retrait dina la des fois mu dab la nga anticiper ko bàyyi parce que am na cause yu koy waral des fois tamit nga dem ba jeexal doog bàyyi gis nañ ko fi mais lu ci nekk rek yàlla na yàlla def boo koy def lépp na nekk ci jàmm ak salaam pour que retraite bi sax dàq li nga def ci sa carrière Babacar mm-hmm. tey tamit ñu dem ci li nga xam ne mooy journée bi war a am fële ca Iba Mar Diop tey le 31 juillet war a tëj saison bi daanaka lii nga xam ne mooy Calme euh, Ndour Pape Yekini moom la Dieye production andi tey fële ca Iba Mar Diop ak animation bu doy waar la prévoir. <laughs> waaw Dieye day daaw noonu la ko defee woon daaw caat sec la indi woon mu toj Iba Mar Diop ren itam yaakaar naa ne ci li ma amee ci ñoom bi muy Abdoulaye Ndiaye mi yore bu soobee suñu borom parce que Pape Diouf sax lañ ko couple leen mais Pape Diouf xam nga daa nekk États-Unis te yaakaar naa ci ñoom liñ ma wax Pape Diouf tey ci guddi lay ñibbisi kon xam nga kooku moom ah du mën a nekk mais caat moom yaakaar naa itam fees na place parce que wax dëgg yàlla bu dee way rek la caat seeg xam naa ne ah mënees na ko ëpp bay rek de waaye dàq ko way dina jafe te ku mën a way la macha allah kon tey jéey loolu la ñu indil Iba Mar Diop ak combat boo xam ne bu neex la Pape tamit di mbër di champion bëgg bokk ci grand champion yi grand Mbagnick itam ñu xalaat ne bokk na si ñi nga xam ne ëllëg war nañu mën a tax taxawaayu Yaxya Jóob Yékini ñu di ay xale ak yeneen combat booy Dakar a ngi ci biir ak yeneen xale yoo xam ne nii tey daal stade Iba Mar Diop moom wax dëgg yàlla ci kàttanu yàlla dina neex bu soobee suñu borom ñu ñaanal jiyee rek journée bi tamit comme ni mu ko tëjee yàlla nañ ko ubbee noonu déwén ak jàmm parce que euh, loolu mooy mooy waaw moom la ñuy ñaan daal waaw Babacar ba tey ci 31 bi ñu waroon a am lutte simple fële ca arène Adrien Senghor ak Jax mais ginnaaw bi combat bi jàllee le 28 mu nekkoon journée bi tamit euh, bu mu misé woon 3 millions mais amateurs yi tamit teewuñu woon noonu parce que tamit mun nañ ne est-ce que du combat royal bi tamit moo fa jour boobu tey tamit euh, dafa décidé annulé loolu nga xam ne mooy journée bi mu naroon a tëgg ci arène Adrien Senghor. waaw tey waa loolu lay def parce que xam nga keroog boo xoolee combat royal tëgg teg na millions ba Mar Diop euh, combat royal. royal bi te loolu xëy na bu tombee des ay sa mën naa am lu mu wàññi te effectivement yaakaar naa feeñ na ca tey tamit su bëggee defaat lu mel ni ki noonu ba pare mu nekk jour ouvrable dana xaw a doy moo tax xëy na mu annulé tey gala bi mu waroon def euh, euh, Adrien Senghor moom Jax mais loolu si mën di dégg moom am na méritant Jax simple niveau bu muy yegg moom Jax bokk na si ñi ko fa yóbbu ci mise yu muy teg ci façon organisation bu muy organiser lutte simple bi réyoon na trop mais nag malheureusement li ci mujj am mooy élection yi euh, coupe d'Afrique bi calendrier bi xatoon ak koor gi ba tax yooyu yëpp kiwul mais ñu ngi ko ñaanal saison prochaine incha allahu rabbi lépp lu mu sumb rek yàlla na ko yàlla may mu mën ko def ci kàttanu yàlla te jëlee ci ndam mook bépp promoteur bu nga xam ne yaa ngi ci lam moo xam simple ngay def wala frappe donc euh, ñu jeexal ak euh, li nga xam ne peut-être ni xaar mooy dagg yi nga xam ne waroon na séntu woon nañ ko ci combat royal bi diggante Eumeu Sène ak Bombardier kii dagg nañ ko 810 mille kii dagg nañ ko 700 et quelques mille mu nekkoon loo xam ne ni ñaa ngi xaaroon nañ sax peut ëpp ndax temps bi ñu jël bëri woon na jour boobu. waaw man moom xaaroon naa ko waaw ma seen Modou Lo temps bi temps bi yooyu yëpp man xalaatoon naa sax dinañ leen dagg lopp lool mais ah kon dafa mel ni dañ leen dagg par rapport ak ni ñu ko xalaate woon dafa mel ni kon maanaam lu oyof la total parce que bu dee mot loola sept cent soixante dix mille Eumeu Sène huit cent dix mille ah loolu tamit xëy na ay règles yu ñu xëtt la ba tax lu mel noonu dal seen kaw muy ay sanctions financières mu nekk lu nga xam parce que tamit mbir mi moom comme li muy wax rek ak lu mën a xew moom lépp dana am lu ñu bëgg mu avancer jëm si kanam faaw ñu réglementé ko teg ko ci ay yoon pour boo wàccee yoon wi loolu mën la wan ne la da wàcc yoon sanction bi moo lay Babacar ci loolu la tàggoo ñu suivre Leewtoo TV koo xam ne nag yaa ngi suivre Leewtoo TV di ñu safoo à chaque fois di ñu dooleel à chaque fois Babacar. noonu lay demee Aïssa di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak ah, di wax ne tamit saison lañ nekkoon saison wu làmb xëy na ci reportage yi wax nañ lu ñu wax lu leen déranger loolu lu mu si mën a doon rek dañ leen ah, mais ñu dimbali ba Sénégal yi nga xam ne nag dañu nekk à l'étranger moom mention spéciale ci Leewtoo TV jàpp nañ ci bu baax a baax a baax ñoom ñëpp nag ak fu ñu mën a ne ña nekk Norvège ña nekk Arabie Saoudite ña nekk Medinatul Munawwara États-Unis France fu ne Portugal fu ci nekk Belgique fu ne sénégalais mu nga fa di ñu ndamoo di ñu sagoo ak ñi nekk Mali Côte d'Ivoire Gambie fu nekk ay Libéria fu ne la ma nit di wooyee kon yéen tamit mention spéciale mais du ma fàtte nag ki nga xam ne moo di xarit jigéen lañu te dañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di balo ñëpp ak ay sut fay.